yaa ngi pare gàmb gi gàmb gi hmm? gàmb waaw kañal la set weer wii di semaine bii di ñëw weer wii ñëw waaw ku ko wax ndigal la ah moom man taal na ma <laughs> salaamaaleykum internetu Sénégal ak kawteef maa ngi leen di ziar euh, ci weeru gàmmu gi ñu jub euh, tey nag ñëw seet si koo xam ne nag kenn dootu ko présenté parce que dañ koy suivre TikTok lu bëri ak suñu maam booy tey nag ñu ñëw jël ko exclusivement moom Maodo ñu waxtaanee turandoowam tuuti laaj ko ci euh, lu muy préparé gàmmu beeg yooyu noonu Maodo maa ngi lay nuyu di bàyyi nga nuyoog internet yu muy seetaan. waaw salaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi nuyu ñëpp di la nuyu yow Aida. ak sa caméraman bi nga àndal di jël nag suñu nuyoo di ko teg si loxo kilifa dëkk bi muy xalif général des Layènes mu jottali ñu suñu nuyoo képp ku ñuy seetaan di nuyu tamit xalif général des Tidiane Serigne Mbaye Sy Mansour di ko ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam bàyyi ko fi ba suñu kanam kanam di nuyu suñu mbokki internet ñëpp ñu ñuy seetaan. Euh, deux ans gàmmuñu tey ñu ñëw war gàmmuwaat nan nga koy pare. waaw loolu moom beneen affaire la wax dëgg yàlla parce que gars yi nag nañ bu rëy namoon nañ gàmb gi mais kon ñun moom tarixa seex si kilifa si ndigal la ñuy demee xalif général bi toog na deux ans yoo xamante ne gàmb amul burda amul bii nag bu joxee ndigal na gàmb day am loolu defe naa moom tiwaawoon moom kenn du fa xaj waaw. da nga daan dem chaque jour euh, wala da dem euh, premier burdu dernier burdu nan nga koy nan daal. non man moom li ma daa dem burda bëriwul parce que. 2011 ama 2012 dañ fa newoon di liggéey xam nga président Koskas ñoo dëkk mu ngi dëkk fii rek si kanam moo ñu fa yóbbuwoon ñuy liggéey bi ñu fa yóbbee ñuy liggéey rek pour da fekk ñu fa mais loolu leneen la mais ñun fi ñu toog nii jàkka yi ngay gis nii dañ fi burda dañu ñu fi burda xalifa bi boo leen fi yebal moo tax ñun waaw xalifa wax dëgg yàlla ñun fii la ñuy burda li ëpp fii la ñuy burda mais tëccal burda bi dañuy dem. ci ngay demee Tiwaawan. la ñuy demee dëgg yàlla moom ñun biñ dalee dem Tiwaawan boobu ay xale lañ parce que xam nga ñun suñuy waajur ay taalibe seex lañ te fii dëkk la boo xamante ne Tiwaawan moom dañ ko fonk man bi may dem Tiwaawan suma juumul ma ay 10 ans laa la la laay am suma juumul parce que yàgg na moom yàgg na trop ñun moom Tiwaawan moom yàgg nañ see dem wax dëgg yàlla. si sëriñ yi kañ nga kañ nga a xàmmee kan nga njëkk a topp waxam nga koy topp ak yooyu noonu. si sëriñ yi maam Abdou Aziz Dabakh dégg yàlla moom lañ jëkk a parce que booy xool bi muy gaañu sax ñun ay xale lañ mais si ay jamonoom si lañ si lañ si lañ moom daal lañ jëkk a ràññee yoon. moom ngeen jëkk a ràññee. Mhm. sa tur Maodo Malick sa Hadj Malick directement lañ tuddee wala. ñu Maodo si bu maam Abdou Aziz moom si boppam moom ma uuf tuddee ma boppam parce que suma xaritu papa la. léegi sa turandoo tey su ma la doon wax parce que Seydi Hadj Malick tey moo tax tey ñu fësal gàmmu lu bari euh, fii biir Sénégal ñu koy def mm-hmm. euh, tey sa turandoo su ma la doon wax tey lan ngay dégg ci moom loo xam ne dina la marqué dina la neex ñu koy yaru wax yàlla yaru koo wax ñu ne sëriñ Maodo si boroom xam-xam bi ak yar bi waaw te boo xoolee comportement am nga xam ne kii ku yàlla baaxal la ku yaru la mag mu yaru la man loogoo ma gën a marqué si moom waaw mag mu yaru la wax dëgg yàlla loolu moom moo ma gën a neex si moom. Euh, ci ci ci ci ci bi nag ñu ngi gis sa maam dëgg la euh, dafay naax des fois comme sama maam maa ngi koy nuyu <laughs> mais da koy fàttali tout le temps di ko tegal ay way te zikar da ngay zikar. non man doon du ma c'est que xam nga ñun fii nii en général dañuy tàmbali dem si daayira yi looloo tax léegi nag boo tax dem si daara yi da ngay xaw a mën ñu bëri dañu may woo ma laaj la moo lay. ah parce que sa baat neex na. moom man moom wax dëgg yàlla mosuma téye micro di way si daara yi ñu bokkoon daal la ñuy dem doon wayantu xam nga en plus am koo xamante ne nii moo jàngal métier kooku tamit buñ daa ne di liggéey buy way ma koy aaw loolu la quoi mais wax dëgg yàlla duñu ay waykat. léegi mu ñëw sa maam yaa ngi koy tegal zikar yi di ko di fàttali un peu euh, loolu lan moo tax. waaw xam nga mag ñi moom wax dëgg la ay taalibe seex lañ xam nga fii mag ñi magi lébu yi dañ bëgg sëriñ ko Si bëgg Alaaji Maalik xam nga te kon moom mag la te tamit boo ko tegalee loolu daf koy neex moo tax tout le temps bu ñu toogee rek dama koy tegal sikkar muy déglu boo xoolee suma paas tiktok bi am na benn sikkar bu ma mos teg si biir koor gi bi muy jooy noonu di tëdd suma kaw loolu maa ngi rees vidéo mais après daf ma daf ma daf ma tuuse quoi parce que yombul parce que yow wayu yow mi xale boo koy déglu day neex si yow léegi moom mi mag nag di nga déglu ba ba xam nga muy jooy loolu laneen la quoi loolu moom marqué woon na ma trop. moom ban si sikar moo ko gën a neex man la gën a bëgg nga koy tegal. moom sikar yi muy ëpp bii lay si déglu Alaaji Malick jàng ba rëy na laay laay lelal yi boobu moom bëgg na ko trop trop trop waaw. koy tegal tout le temps <laughs> léegi rek wax ñu sa premier gàmmu ci waawan ba nga njëkkee dem découvrir Tivaouane gis jumaa ji gis sëñ Baba kañ nga njëkk a ziar bëggoon naa xam waaw suñu première dem Tivaouane parce que boobu ñun ay xale lañ xamuñu dara mais li nga fàttaliku loo xam parce que boobu ñun liñ si mën a fàttaliku mooy ñun buñu demee xam nga boo nekkee xale yëfi xale ngay def boo demee Tivaouane yow doo tal ziar doo tal def dara leen la ngay dem da ngay dem football ah pare lekka ñu gàmbu si daayira bi tamit dañuy gàmbu day am ñuy sikkar foofu boo paree nga dem waaw mais su ma juumul daal si année 2000 yi 2001 2002 côté si lañ commencé ràññee bu baax waaw. ba nga commencé ràññee ba nga duggee ci waawan ban sens kan nga ni ko lan nga xool sensation yëg-yëg boobu nga am. moom wax dëgg yàlla bi ma commencé ràññee jëkk a dem Tiwaawan di ziar parce ñun bu ñu demee Tiwaawan fi ñuy jëkk a ziar mooy raw di si Hadj Malick bu ñu fa jógee jaar si bu maam baax kon si foofu la nekk après bu ñu fa génnee dem bu Serigne Babacar Sy. noonu lañ koy toppante mais wax dëgg yàlla moom jour bi ñuy jëkk a ràññee loolu moom lu neexoon na torop si ñun parce que ñun même bu dul gàmb sax bu ñu amee temps dañuy dem ziar yi ñëwaat. waaw tarixa tijaan moom li ma si gën a marqué wax dëgg yàlla mooy que ne mooy que ne bëri nañu am xam-xam te wax dëgg yàlla boo leen di déglu seen waxtaan yow si jëmi bopp dañ lay yaraal yow da ngay yaru boo leen di déglu xam nga parce que si ñoom yonente bi rek mooy leen ñoom bind Seydi Hadji Malick te bind Seydi Hadji Malick boo xool si yonente bi rek lay wax donc loolu moom si gën a neex. est na nga bokk daayira di ko gën a. waaw ñun fii nii gis nga kër gi ngay gis ne la fa président Koskas dëkk maam Ousmane def naa erreur sax parce que li waroon naa ko oo wax ko parce que suma kilifa la même bu fekk amul jot instant mi ngi tiwaawan mais waroon nañ ko mën a oo sax laaj ko moom mu ñuy dolli sax mu dolli ñu parce que moom moo jiite koskaas gépp si daareem lañ noonu ne biñ nekkee xale di dem di ànda suñuy waajur di ànda suñuy mag. est-ce que di nga toog tamit euh, wird jël nga wird. di wird non jëlaguma moom. ñaan naa yàlla moom jël ko waaw. maam maam daal moom bu jullee ba pare. <laughs> boo xoolee. moom day toog ay salaatul fatiha lay kiiwee lay taaree. toogee ba am xelam kii ka rek mu sëlmal. moom lan lay gën a wax ci Tiwaawan par exemple. muy gën a fàttaliku Seydi Hadji Malick na waaw moom moom xam na tur yi mais Seydi Hadji la ëpp lu muy tudde ak Serigne Babacar Sy. ñaar ñoogu la ëpp lu muy lu muy tudd que am na doom bu tudd bu mu tuddee benn sëriñ wala. waaw ab taawam ñu ko tuddee si Ahmed Tidiane Sy. ak taawam am na yeneen doom yoo te te ne Mouhamed lañ tudd waaw bëri na moom daal tarixa bi da koy dund moom même su xel bi naaxee day dund tarixa waaw moom moom bu naaxee moom day dund tarixa bi normal wax dëgg yàlla moom naaxam yëpp tegal ka sikar xaalis waaw day ñëw xaalis moom mooy mooy mooy kiiwam donc kontaan nañu looy lancer message tamit jeunes yi parce que dañuy dem chaque jour dañuy critiquer bu ñu demee dañuy lekk foofu di foo wala boog duñu concentré wu carrément ci ci ci ci euh, gàmmu gi lan ngay wax jeunes yooyu di dem. waaw jeunes yi moom li leen di dolli si rek mooy que ne yaakaar naa moom gàmmu bu la taxee jog bu dee lekkax naan rek fii ku si nekk sa kër am na lekkax naan mais bu dee gàmmu moo la tax a jóg war nga dem si njëkk a asiteraanga dem gàmmu dem uti si tiyaaba yi ñëwaat waaw. mais bari na ay jeunes yoo xamante ne nii mën nañ dem Tiwaawoon ba ñëw duñ sax dem si aar ji xam nga duñ def dara loo xamante ne neex na yàlla te loolu xam nga baaxul da ngay da da da sa bopp nga si tardé parce que yow war a dem uti ji mais boo demee di def leneen di si am leneen tamit xam nga loolu mooy loolu baaxul donc maa ngi lancé appel ñu xam ne tey gàmbu ah da war a dem uti ji ay tiyaaba xam nga mais pas ngay dem pour lekkaat naan rek loolu moom yóbbu ñu Tiwaawoon mm-hmm. est-ce que sa maam ni koy wanee noon est-ce que amul benn kilifa mosu la woo. ah man façon nit ku nekk amay oo di ma di ma encouragé si def parce que lii yombul xam nga yombul donc tey du hasard man dama naan du hasard pour être li tax yàlla boole moom xam nga may def benn affaire mun ne ñëpp xam nga. defe naa man rek ngay gis si TikTok bi ko xamante ne nii commentaire yi pas normal doo gis ku si saaga doo gis yi parce que li ñuy def naturel la du loo xamante ne dañ koy forcé moo tax façon nit ku nekk la si yow ay kilifa yu ne xam nga. Mhm. ñu ngi jaajëfal kontaan nañ tey ci gàmmu gi rek moo ñu indi mais dinañ ñëwaat yaatal xool sa liggéey ak say loo koy boole TikTok beeg yooyu noonu. waaw waaw ñu ngi am mbégte moom wax dëgg yàlla parce que. li ngeen def ni yombul xam nga Sénégal yaatu na ngeen taamu taamu ma si pour ñu ñëw waxtaane si gàmmu gi te loolu dañ siy sawar wax dëgg donc maa ngi leen di jaajëfal si dérangement bi ngeen def xam nga di nuyuwaat ñëpp di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg xam nga dëkk bi yàlla na fi jàmm sax lool parce que Sénégal dëkku dëkku dëkku jàmm la dëkku diine la te booy xool tarixa yëpp benn la muy xaadir muy laayeen muy ñeseen yëpp benn la tey ñun fi ñu nekk nii dëkku dëkku dëkku dëkku dëkku kii la laayeen mais fii ñu ñëpp benn la mhm. ndooy yaa ngi pare gàmb gi hmm? gàmb gi gàmb waaw kañal la set weer wii semaine bii di ñëw weer wii ñëw waaw ndigal la ah, moom man taal na mag <laughs> doy libaas a gañal <laughs> wallaay njañ jërëjëf kontaan naa mais maa ngi ñëpp wax dëgg yàlla képp kuy soppe Mbène Ndoye rek maa lay nuyu di la remercier parce que wax dëgg yàlla ñoom dañ lay oo di la ñaax di la ñaanal xam nga ngay def benn affaire ñoom ñëpp di ko rafetlu yombul donc maa ngi nuyu soppe Mbène Ndoye ñëpp di nuyu tamit fi nga xamante ne fa laa dëkk di nuyu famille Mbène Ndoye ñëpp ah di nuyu samay mag yëpp bu ma limee damay juum rawatina tamit suma benn papa muy Biram ñi nga maa ngi koy nuyu bu baax tamit moom di ko ziar di ko ñaanal yàlla gudd fan di ñaanal sumay waajur yàlla bàyyi leen fi ba si kanam ah ñëpp mu si xaj waaw